Eh, Assalamualaikum warahmatullah bokki rahmatullah sénégalais yi man la Serigne Assane baté ya. nek atas politique bi ñuy jàpp depuis vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi tay di ñu war ma def mandat dépôt may ñaawlu ben sama arrestation parce que man na ko jappé ya, kidnappé ndax ya. dañu ma fekk sama auto kidnappé ma japp ma dal ma indi fi tam may tayit sun borom dimbalé ma ma am xolu muñ lool ak xol bu yaatu ci ñi nga xamantene ñom lañ té ci walu mam ci walu ñu wax né mom lan mom lan mom lañ ñu jappé muy manifeste tok ala lu jambor may sédel aduna ñi ñu fi japp ñëpp amul kenn ko xamantene japp nañ la te man manam manifestation bu amul ndax ñi ñu japp ci ay mbak tuba lañ leen fekk japp leen ñi ñu japp ci seen bërëbu liggéeyukaay yi lañ leen fekk jàpp leen ñuy jàpp ci euh, seen oto wala seen moto la leen fekk daal leen jàpp am na ci koo xamante ne bi ma expliqué sax ni ñu ko jàpp ay reetaan daf maa jàpp parce que nee dafa sol mayo Sénégal la sol police bi gis ko woo ko mu ñëw mu daf ko jàpp mu ne ko lan laa def mu ne ko da sol da sol mayo Sénégal moom moo tax ñu jàpp la kon réew mi fan lañ jëm fan lañ toll ba ko sol mayo Sénégal ñu jàpp la us takk brassard jaune rouge ñu la kon damay wax ne kon réew mi réewum jaay dooleel ak réewum dictateur may wax nag ñëpp ne fi ne Macky Sall moo bëgg taal dëkk bi ndax li wax naan dëkk bi du ñu nangu taal bëgg taal dëkk bi ndax def di asarnewu ci kaw nit ñi di asarnewu ci ñi nga xam ne dañoo ànd ak Ousmane Sonko ëpp na trop c'est trop parce que ñi ñu ñi japp ñëpp bëgg leen tuutal la leen jàppe ñi japp ñëpp xoxtal tamit moo tax tamit ñu jàpp leen kon nag heure bi jot na pour ñëpp jóg ñu taxaw ne ko lii nga bëgg wala lii nga bëgg a continuer naka yam naka yam tay tay tay tay tay kon maa ngi leen wax yéen waa Sénégal di wax waa àdduna di wax waa diaspora li ma gën a ñor mooy Ousmane Sonko nañu ko protéger ndax protéger Ousmane Sonko mooy protéger sunu bopp sunu patrimoine li nga xam ne sunu moomeel la ñun sénégalais muy suñu produit ñu bëgg ko muy Ousmane Sonko ma ngi leen ñaan la waye nañ ko protéger bu ñu ko daree àdduna jàlla ñu fexé ba koy ñak kon ma ngi ci wo sénégalais di ci wo aduna bi ci wo ñëpp nañu jox taxaw ñu ñëpp ñu booloo manko protéger Ousmane Sonko ngir yalla protéger leen Ousmane Sonko ba li ñoom ñu bëgg ñoom say say yi li ñu bëgg loolu du am kon ma ngi leen wax ne leen man dañ na kidnapper jaay ma doole li ma mi sama safoor mi sama rak mi ak sama secrétaire mi Cheikh Diop mi gaañu doole tëj ñu waaye na bàyyi nañu lépp ak lepp ci la offre borom ndax mom rek mo am doole mom rek mo yeyo doole waye na ku yaakaar ya kan, iya am doole wala yaay yeyo doole ba tax ngay asano ci kaw ñu jëf jàpp ci tëj bis dina ñew te li mu ñu lebal ëllëg dinañ ko ko fay ba wis ko ko kon nag ñun xoqtal taxul ñu deltu ginnaaw xor ñoo ñu taxul ñu deltu ginnaaw joxe ay ay ay ay exception ci nit ne kii nañ ko nañ ko toroxal nañ ko tëj nañ ko def lu taxul ñu deltu ginnaaw benn yoon fañ taxawoon tey lañ ciy gën a taxaw lañ doon woote tey lañ koy gën a woote lañ lañ doon def tam tey tey lañ koy gën a def di leen taxaw ba lii fi nekk changé régime bi fi nekk changé ñu indiwaat ñeneen ñu bees pour liggéey Sénégal liggéey réew mi Sénégal jëm kanam vive Sénégal vive Sénégal vive Sénégal